chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec euh, les bénévoles du secteur de l'hydraulique qui menacent d'observer d'observer une grève de 72 heures pour exiger leur recrutement. Ils l'ont fait savoir euh, lors de leur assemblée générale tenue à Louga. Plus de détails avec Lamine Gueye Sama. Présents dans 13 régions du Sénégal, les 85 bénévoles du secteur de l'hydraulique ont choisi Louga comme mur de lamentation. Très amers, ils ont décrié la situation de précarité dans laquelle ils baignent depuis plusieurs décennies, malgré l'énormité du travail qu'ils ne cessent d'abattre. Ils déplorent jusqu'à la dernière énergie le recrutement d'une clientèle politique au détriment des véritables connaisseurs du secteur. Babacar Ly est le secrétaire général

Avec 12 millions par mois, on peut satisfaire les 85 bénévoles. C'est ça la réalité. Le collectif euh, des bénévoles de l'hydraulique peut, dans sa lutte, compter sur le soutien du mouvement Frappe France Dégage. Guy Marius Sagna et compagnie ont pris part à la rencontre tenue dans la capitale du Ndiambour. Lamine Gueye Saman Louga, Sud FM. Lamine Saman, pendant ce temps, les victimes du marché central de Kaolack vont bénéficier d'un appui de 50 millions de francs que le ministre de Développement communautaire de l'équité sociale et territoriale a remis au gouverneur de région. Les détails avec Mamadou Camara. Les sinistrés de l'incendie du marché central de Kaolack ont poussé un grand ouf de soulagement au nom de l'État du Sénégal. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale a remis une enveloppe de 50 millions de nos francs au chef de l'exécutif régional qui à son tour remettra cet argent aux victimes de l'incendie. La cérémonie symbolique de remise de cette enveloppe financière a eu lieu à la gouvernance de Kaolack. maire de commune de Kaolack s'en réjouit. Vous, vous savez, les, les incendies surviennent partout, au niveau des domiciles, dans les marchés, au niveau des entreprises, on peut pas. Cela, c'est évident. Mais quand il y a problème, il faut que tout le monde accompagne. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui ici. L'accompagnement pour ces commerçants qui sont un peu dans la détresse, qui ne savent où aller, cet appui va les accompagner pour qu'ils puissent reprendre, je l'ai dit tantôt, le travail petit à petit. La construction du masque, on peut dire que c'est Une mission de l'AGETIP était la le vendredi avec tous les services techniques, le ministère du Commerce aussi. Nous avons fait les visites des différents sites qui ont été proposés et je pense qu'il y a quelque chose traîne avant d'ouvrir les concertations avec les commerçants, sous la supervision du gouverneur, avec le préfet et tous les acteurs. Ce sera une démarche inclusive et nous allons vraiment, à l'issue de ces rencontres, de ces concertations-là, trouver des consensus pour que ce marché puisse reprendre et pour que la modernisation aussi puisse accompagner. Je peux dire qu'il y a une lueur d'espoir et nous, nous savons que cet espoir-là, peut-être les gens vont dire c'est des Après la gouvernance, Mansour Faye, le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, et Madame le maire de la commune de Kaolack, Maria Massar, ainsi que les autorités administratives se sont rendus au marché central de Kaolack pour apporter leur soutien moral à ces sinistrés. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, quelques centaines de kilomètres de là, c'est-à-dire au Mali voisin. Il n'y a pas encore d'accord euh, à l'issue des discussions sur la phase de transition, le retour du président sortant et les sanctions ont été au menu de cette rencontre. Soli Ibrahima Maïga. Trois jours de mission soldés par certains compromis. La situation du président dessus Ibrahim Boubacar Keïta, la transition pour la mise en place des autorités intérimaires ainsi que les sanctions de la CEDEAO sur le Mali à la suite du putsch sont les principaux points discutés entre la junte et la délégation. Plus de doute encore, Ibrahim Boubacar Keïta est dans le passé. Jonathan Goodluck confirme à sa sortie de cette dernière rencontre de la mission. And we, we asked nous lui avons demandé, en tant que président de la République de ce pays, que, proposez-vous Quelle est la voie à suivre, à votre avis And Keita said, look, he has resigned. He was not forced to resign, but he has resigned and he is not interested in governance again. Donc le président Ibrahim Baka Keïta nous a fait savoir qu'il a donné sa démission, qu'il n'a pas été contraint à le faire et qu'il n'a pas envie de revenir aux affaires non. Il poursuit en rendant compte des recommandations du président pour le pays. He wants a quick transition so that the country will go back to a democratically elected government. Donc ce qu'il souhaite c'est une transition rapide pour permettre au pays de retourner dans dans un règne civil, dans régime civil le plus rapidement possible. That un régime qui pourra interagir, pourra travailler avec le reste du monde de manière libre. De son côté, le porte-parole des militaires du CNSP, Ismail Awagé, revient sur les différents points de ces trois jours d'intenses discussions. En ce qui concerne la transition proprement dite, on a eu des échanges par rapport à la transition à l'équipe de transition, au président de transition, au gouvernement. Chacun a donné son idée de la transition. Les représentants de la CDAO ont parlé de leur compréhension de la transition. Déjà dans la mesure où M. Ibrahim Kabaka a démissionné et qu'il a dit clairement son intention de ne plus revenir au pouvoir, donc forcément il faut mettre en place une équipe de transition. Maintenant, la CDAO a donné son point de vue par rapport à leur de transition. Nous aussi, on a par rapport à ce que nous, on pensait de la transition. a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé, et que nous, à notre niveau, l'architecture de la transition sera discutée et définie entre... Une réunion des chefs d'État de la CEDEAO devra trancher sur le

Bira Birama Ndiaye sant leen gërëm leen gërëm bu baax ba dara Socé mi féete ci wàllu xarala gi ñu dooree ko ci ñaxtu ak it grève ñetti fan ya nga xamante ne boo moytu lii di bénévole yu secteur hydraulique fas yéene nañ ko amal loole ñoo ngi ko xamle ginnaaw bu ñu amee seen ndaje bu yaax ñoom nag lii di mouvement frappe France dégage mu ngi leen di jàppale tànk xaat lamin Gueye Samane gannaaw bu ñu jógee ci fukki région ak ñett ci biir Sénégal lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróomi liggéeykat yu nekk ci secteur u ndox mi ñoom Louga lu ñu tànn ngir wax fa seen ay jafe-jafe ak seen ay ñaxtu mer ba futu nag ñoom ñaawlu nañu anam yi nga xam ni moom lu ñu nekkee boobaak léegi ay at a ngi nii donte lu ëpp ci liggéey joxe ndox ci biir réew mi ñoom ñoo ko yor naqar la nañu lool itam jël gi ñuy jël yeneen i ay nit yu yëngu ci wàllu politique bàyyi leen fi ñoom ñi nga xam ni ñoo xam liggéey bi nan la demee général kuréel gi ëmb mbooloo mi bénévole ci secteur hydraulique ci biir réew mi. di nga gis bénévole bi fi def liggéey bi ñoom ñoo ko yor bu ñu demul forage yi duñu duñu fonctionner la ñuy demander mu jàppale ñu taxawuñu ba ñu am contrat CDI yi nga xam ne moo am ci ministère de l'hydraulique ñu ko tuddee les contrats FNH te état bu génnee millions mën nañu satisfaire ministre bi nga xam ne tey moo fi nekkoon ñu naan ko Mansour Faye avant mu fiy jógee jëloon na quarante jeunes politiciens yoo xam ne du formation du qualification du connaissance de métier mu teg leen ci kaw bénévole yi ñoom ñëpp ñu ñu affecté woon ci région yi delluwaat nañ Saint-Louis tëdd nelaw weer ñu fay ñu bàyyi fi bénévole yi nga xam ne ñu ci àll bi subaa ngoon guddeeg bëccëg di dépanner forage ñoom ñu ni nag nguur gi bu wéyee di tànqablu seen jàmbat yi bañuñu sax ba banque seen loxo lu toll si ñetti fan Babacar lii tey bénévole yi bu ñu banquee seen loxo lambaay dina ñaaw bu ñu leen déglul ñun dinañ fas yéene incha allah rabbi déposer Cap Skirring ba ay population manqué ndox génn di réclamer ba ay mor am te boobaa ñun suñu bos mooy gën a garaaw parce que ñun treize régions yëpp lañ nekk boobaa euh, le monde rural ñëppay génn bénévole yu secteur bu hydraulique si seen xeex bi ñuy xeex am na ñun ndimbalu kuréel gi ñuy wooyee FRAPP France euh, dégage ndax Guy Marius ak ñooñam teewoon nañ si ndaje mi xam ne moom lañ doon amal fii si biir Louga ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saman Sud Lamine Gueye Saman ca Kaolack ñoom ña nga xamante ne ñoom ñoo loru ci lakkub marché boobe di marché central bu kaw lakk ñoom mun nañu nokki ndaxte nag lu toll ci juróom fukki million la jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu développement communautaire équité sociale ak territoriale la daal di jox gouverneur bu fa foofee nag ngir rek ñu daal di suqaliwaat lépp lu jëm ci seen wàllu liggéey yooyu ginnaaw ñu ca lorule du Camara. ñi nga xam ne lakkale nañ ci marché central bu Kaolack rawatina waa mbaaru fëgg jaay mun nañoo gën a am yaakaar ndax nag ci turu nguurub Sénégal ministre bi yore wàllub développement communautaire équité sociale ak territoriale di Mansour Faye jox na gouverneuru Kaolack enveloppe boo xam ne bi juróom fukki million la yoo xam ne jagleel nañ ko ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule woon ci lakk boobu rawatina waa mbaaru fëgg jaay loolu nag mandargal nañ ko ci gouvernance bu Kaolack madame Mariama Sarr di maire commune Kaolack di ko rafetlu. ministre Mansour Faye ci ñëwam bi nga xam ne ñëw na ko fi tey indi ndimbal lu am solo ndimbal lool nag ñu ngi ko ci gërëm di ko wax ne ko dañuy yóbbanteel aussi ngërëm ci président de la république son excellence Macky Sall. Euh, ngërëm gi nag ci sama tur la waaye ci turu bureau municipal la ci turu conseil municipal ci turu commerçant yi nga xam ne tey ñoom ñëpp ñoo am métit ci turu population Kaolack ndax ku métti am am naqar nit ñëw dimbale la kala dimbale kooku bëgg na la. te kooku yéene na la jàmm li ngeen wax yëpp ci affaire jaaxle bi ni ñu war a reprendre seen liggéey yëpp looloo waral ndimbal bii ñuy gërëm aussi bonne volonté yi nga xam ne yëpp ñu lancé appel bi ñëw nañu jàpp ci te ndimbal yooyu bu ngi continuer di ñëw loolu yëpp nag ñoom dinañ xool nu ñu koy organiser pour que ñu mën a commencé waat seen liggéey ndànk-ndànk en attendant lii xew di xew lii xew nag bu ñu nee marché bi nga nekkoon tey dafa nekk marché boo xam ne dëppootul ak jamono ñu war ko beesalaat juróom-ñaar fukki milliards presque jege na ko pour moderniser les marchés Kaolack bokk ci loolu bu lakk amee te Kaolack bokk ci te AGETIP ñëwaat encore ay réunion pour démarrer kon defe naa yaakaar mën na am xel mën na dal lii ñuy def daal tey ñun dañu kontaan. ginnaaw ba ñu jógee gouvernance moom ministre bi di Mansour Faye ànd ak euh, madame Mariama Sarr di meeru Kaolack ak autorité administrative yi dem nañ ca marché central doon masaw nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule ci lakk boobu ñu ràññee ci ay jigéen yu bari Kaolack Mamadou Camara Sud FM Mamadou kamara ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci wàccaayu tamxarit bi nes koy niñ koy defee tax na rek daayratul muxtafina bi ëmb ndaw yu tiijaan yi Sénégal dañ koy amal ëllëgu tamxarit ju jot seen ndaje boobee ñoom naka daal di nañ ko fomb ba jëmi jamono lenn lu ko waral bokk na ci mbas mile ak ni jamono tërëde Serigne Moustapha Sy Al Amin moom mooy seen njiit jàkkaarloog nag waaye taskatu xibaar yi ñu teewlu ko ak Babacar Sow. réew bu yeggee fii feebar toll nii lëmbe àdduna te yàlla defal ci sax chance sunu réew war nañu delluwaat nun ñëpp natt sunu responsabilité ci biir feebar bi ci njëkk mooy ñu topp mesure barrière yi nga xamante ni moom la docteur yi digle ndax sëriñ Babacar si daf daan wax ni sëriñ bi wax ni kon nag ànd na ci ku ne fa nga nekk nga daje fa ña nga fa mën a dajeel waaye nañ ko consacrer spécialement mu nekk bisu pour Sénégal pour njabootu Sénégal bi su ñaan pour àdduna bi njabootu l'islam bi bisu ñaan pour yàlla gën a sërxal jàmm ci sunu biir sërxal yiw ci sunu biir may nu mbas mi ñu génn ci ak sago génn ci ak jàmm waaye bu nu ci génnee it mu may nu kàttan wu nu delloowaat liggéeyaat liggéey pour sunuy peñ